1737 bu compagnie Transair dafa génn ci piste bi nga xam ne moom la waroon topp laata muy décoller ba léegi xamaguñu lu waral lu ni mel ci gis-gisu Alxasan Aan di expert aéronautique xam-xamam màcc ci mbirum roppalaan moom jàpp na ni ñetti mbir kott moo war a tax ab avion saaraan wàcce yoonam. mën nga dem eh, di décoller jékki-jékki comme guddi la nga gis obstacle maanaam. luy traversé nga bëgg koo éviter far nga dem ci euh, ci mbooy gi wala disons euh, li tax yow ngay ngay rouler c'est-à-dire sa sa pneu yi sa système de pneumatique nga dem ba ci kii mu am problème am déséquilibre waaw nga nga nga dérivé waaw nga génn piste bi wala euh, disons comme ni ma ko déggee quelque part ñu ne am na ci moteur boo xam ne dafa en fait dafa amoon euh, incendie à bord. ki fi nekkoon chef de maintenance bu compagnie Air Sénégal li ko leer ba leer mooy am na lu jaarul yoon ci anam gi nga xamee ni noonee la ñu réglé mbirum vitesse su bile aéronef. décolage ñetti pàcc la. donc da ngay njëkk dem ci phase initiale bi nga xam ne da ngay lancer say moteur daw ak sa avion jékki-jékki nga dugg ci phase euh, d' acquisition vitesse de décision bi moonaam naam euh, vitesse bi nga xam ne moo lay. Euh, permettre nga nga nga décider ni ndax da ngay décoller wala da ngay da ngay arrêter boo dépassé loolu vitesse de décision boobu rek automatiquement vitesse bi ci tegu mooy vitesse bi nga xam ne automatiquement danga nga war a décoller. Alhassane Anne jàpp na ni bu dee ni benn moteur moo tàkk lu ni mel mënu nañ ko lijjanti si bu gaaw. déjà li ngay njëkk a nemmeeku mooy moteur bi am problème. puissance ba mu doon développé dafay wàññeeku. léegi bu norméloo beneen moteur bi rek mooy dem euh, am na procédure booy def pour contre contrer disons déséquilibre boobu ba pare li wàññeeku ci moteur bële nga jéem ko yokkaat ci beneen moteur bi. ngir nag xam lan moo waral Boeing 737 bu Transair bi génn yoonam ubbi nañu ab enquête technique ngir andi si ay leeral.